rapport ak général sax daf may daf may mayaale buntu cheikh bi ma ma dugg ci sur l'affaire le colonel Cheikh Tidiane Mbodj euh, moom euh, kaam euh, dafa nekk un ancien colonel de l'armée ma ba ma ba may def fii sama édition spéciale ñeel le jour procès Prodac bi ma jël ko appel téléphonique parce que mmh. comme mi ngi woon Thiès mu nangul ma ko nag te xam nga ni <coughs> jour la ñuy gis mmh. un ancien colonel de l'armée buy def sortie mu nangul ma ko ma jël ko comme simple citoyen mu joxe li nga xamante ni moom mooy appréciation par rapport ak tolluwaayu réew mi je pense que ni loolu c'est son droit le plus absolu bi mu ci jógee après yeneen chaînes yi commencé di ko waaw nga Sénégal seet nag moom mooy moom mooy viseur bi ñun ku ñu invité rek boo paree rek euh, ñëpp dañ ci topp macha allah te loolu dañ ciy sant yàlla yeneen chaînes yi commencé ko invité mais à notre grande surprise démb gis nañu euh, ci poste Mamadou Lamine Diallo laa ko gisee ne dañ buñ demee ba mbiri toll foofu tamit cheikh bi voilà le pourquoi des questionnements parce que licenciement bi ñu ngi bind ni mhm. c'est suite à ces propos yu mu tenir ci benn organe de presse mhm. ah, xam nga euh, kilifa yi ñu fal bépp acte bu ñuy yëkkat di ko jëmee ci doomi aadama war nañ ci jiital yërmande te yàlla bu la dénkee doole dafay xaar nga am yërmande ci jaamu yàlla yi kii déjà boo ko licencié mais xool li nekk ci ginnaaw famille ak ñi ko yaakaar fii Sénégal la doomi aadama bu yàlla may lu muy suturloo rek am na yeneen doomi aadama yu uteeg sa famille yu yaakaar ci yow kooku boo ko licencié ñaata gémmiñ nga xaj li doon suturloo bu doomam doon jàng dana am problème mu fay ay fay ay étudiants dana problème mu subvenir ay besoin wu doomam këram maanaam kii à travers licenciement bi mën nga ci tasaale këram. Mm. donc impact bi dafa bëri quoi. Mm-hmm. nañuy sóor bu ñu dàqee nit mbaa bu ñu tegee sanction ci kaw nit la ca ginnaaw. te alxuraan nag dafa waxoon ni bul lore waaye it bul nangu bul nangu ñu lor waaye it bul. mais réew mi nag fu mu ne nii war nañ tiit cheikh bi bu dee. ku ku wax sa gis-gis sax ñu ne la ñu ñu ñu ñu ñu licenciel la wala ñu ne la. ràpp tëj xam nga réew mi moom li ñuy wax mooy liberté d'expression moom <coughs> nekkatul en danger dañ ko tëj condamné ko damm caabi ji réew mi ak i démocrate yi nga xam ne nit ñi dañ ko xeex durant des années mais reculé wul dafa périllé ginnaaw réew mi bu ñuy wax état de droit. mais dafa fekk yëf fii dalul sa kaw mais bu dalee sa kaw rek nga xam ni réew mi dooy na waar trop. Mhm. et nañuy gën a jiital yërmande ci doomi aadama en tout cas moom ñu ngi koy masawu. bu déglu woon nga keroog li mu wax je pense que lu nga xamante ne aay na. yaakaaruma ni un homme boo xam ne parcours bi mu am xam na li mu war a wax li mu warut a wax poste yi mu occupé cest di dire nit ki jëlee ko ci expérience am xam ne du novice xam na li mu war a wax ak li mu warut a génn. donc bu demee ba wax rek je pense que. Euh, brisé wul obligation de réserve. Mhm. léegi nag su fekkee nag réew mi boo waxee su fekkee ni dafa xaw a arranger l'opposition moom xaaral sanction venant du régime. Mhm. soo waxee nag lu mu garaaw garaaw garaaw mais bu arranger la régime rek moom. jarul ngay inquiété wu. oui peut-être sax comme c'est un ancien colonel xam nañ hmm. parce que cheikh bi nit bu la seetsee sax hmm. di ñibbi dara dal ko sax war nga ko masaw hmm. loolu mooy loolu mooy loolu mooy taxawaay ku baax euh, nga nangu wuy si si nga xamante ni mooy suñu appel joxe sa appréciation par rapport tolluwaayu réew mi bu ñu gisee par la suite ci xew yëpp rafet na nit ñu daal ci def ab taxaw seetlu te di la masaw te di la wax ni nag vous avez tout notre soutien euh, colonel l'armée donc cheikh bi ñu continuer li nga xamante ni moom mooy moom mooy suñu waxtaan démb ban jàngat nga def ci sortie bu procureur Ibrahima Bakhoum waaw procureur de def na sortie am yu mu étalé am yu mu wax ñu ngi koy déglu du xool fu enquête bi di mujje ndax am na dossier bu jiituwoon bi muy dossier force spéciale bi n'est-ce pas mhm. ba léegi ñi ngi xaar ñu situer responsabilité yi ñu édifier l'opinion force spéciale force occulte après ñu ñëw ci ci donc comme que boobu leeragul ñu ngi toog di xool bii fan lay mujjee donc bii moom du ma ci soreegum dañuy xaar fan la enquête bu di mujjee wante dafa am laaj boo xam ne sénégalais bu nekk war na ko laaj ginnaaw bi nga dégloo li procureur wax fee yi mu indi mooy ndax ñun Sénégal ñu ngi ci sécurité soo ma ko laajoon man li ma lay tontu mooy déedéet xam nga lu Penda man je pense que ñun ñëpp war nañ tiit suñu bopp gëm ni suñu dispositif maanaam suñu sécurité intérieure dispositif yi am na faay li tax ma ne am na faay mooy su fekkee ni fii Sénégal bii mooy deuxième fois ñu ne manifestation day am ñu ne ay Samba booy bëggoon rax ci manifestation yi yor ndell maanaam arme yoo xam ne. standard militaire la xam nga armement dafa am standard sécurité maanaam pistolet wala fusil am standard militaire loo xam ni maanaam usagers yi pour militaires yi la donc loolu acquisition bi rek déjà ça pose problème xam nga pistolet tey boo demee armurerie yi di nga fekk ñu teg ko di ko jaay ba ci fusil yenn calibre yi mais am na arme yoo xam doo fekk ñu tijji boutique wala armurerie yi di ko fa jaay muy fii muy bitim réew lu bokk ci li procureur lim démb muy RPG. maanaam nga xam ne roquette portatif la am distance bu mu mun a atteindre am lu mu mun a yàq am lu mu toll naka la nit mën procurer woo loolu déjà ça pose problème mais mu dugg ak moom biir dakaar ah su boobaa man li may gëm muy suñu dispositif sécuritaire am na faay te bul fàtte ni Kabiline Diatta waxoon nañ ni mine anti char la yoroon tamit ñaari arme yooyu yëpp standard militaire la. duwul ku jug am ko duwul armure yi boo dugg am ko donc am bi déjà jafe na transport bi jafe na ay nit nag mën ko am transporter ko ba dugg dakaar ba ñëw ba ci VDN bi suñ dispositif sécuritaire intérieur baaxul ñun nekkuñ ci sécurité. mais li jaaxal nit ci tamit par rapport suñu mm-hmm. sécurité boobu Cheikh bi mm-hmm. parti politique yi daf fi bari. Mm-hmm. pour à chaque fois Pastef la ñuy ciblé moom la ñuy wax ne ñoom ñoo am ay forces occultes. force spéciale. ba tey la ko mondoo loolee tamit dafa laaj ay questionnement hmm. waaw xaaral balaa ñuy ñëw foofu. oui force occulte ak commando dafa am lu ñu ci li procureur wax lu ñu prévoir def ci dëkk bi. oui dem uti jumtukaay yi leen ko may dugal ko Dakar. Hmm. sécurité dëkk bi la ñu war a wax ba pare. xam nga dispositif sécuritaire intérieur dafa mel ni mbaal mbaal boo xam ne dafa war a filtrer. lépp loo xam ne dafa dangereux pour population moo xam drogue moo xam arme moo xam woyu moo xam samba boy moo xam moo xam dispositif boobu renseignement def ci bokk renseignement intérieur douane bokk ci garde frontière leneen ak leneen ñooñu ñoo war a tax tey duwul ku jug rek mën gàddu benn ndell arme bu la neex dugal ko Dakar xam nga RPG bu ko nit mënee dugal ci capitale bi ba ci VDN bi mooy sécurité intérieure bi am na faay bu mag te sécurité intérieure dëkk bi daf maanaam day coûter au contribuable sénégalais ay centaines de milliards lii bu doon par exemple États-Unis la commission parlementaire day am par force dañuy déglu les responsables de notre sécurité intérieure pour xam fan la faay bi ne bu doon France dañuy dem assemblée justifié wu sanction dafay am man dama jàpp ni le ministre de l'intérieur doit être démis de ses fonctions. ah waaw parce que échec na. ki yore kaaraange intérieuru dëkk bi bu dee deful liggéeyam ba